doomu Ablaye Serigne Ablaye Diagne Kang nekk en même temps membre commission organisation ci famille pour famille Ndiayoune Mbalo tey jii ñu fii ci jàngaar pour maanaam ubbi fi officiellement daara yi nga xam ne moom la Serigne Ablaye Diagne Kang tabax jàngaar dafa nekk benn dëkk cosaan moo xam ni moom mag ci dëkk lañuy Ndiayoune Mbalo waaw moo waral lan tour bi ñu jëkk organisé fii lañ ko defal waaw léegi am na fukki at ak ñaar te ji nañu daje fi bëgg ci lool ngeen ubbi tabax na fi loo xam ni mucc na ay trop parce que daara ji mën naa daal lu toll juróomi téeméeri tabax na ko tabax bu dëgër bu rafet carré na néeg yi ci biir yaatu na ëtt bi yaatu na am na ay garab euh, néeg bu ne am na ay toilette intérieur ba nga xam ni taalib bu fi nekk vraiment dina mën a jàng ci njàng moo jafe-jafe yi am na bi ci jiitu mooy yoon parce que bu ñëw jàngaat jamono yi jafe ndax diggante Diangar euh, mi ngi bokk ci commune rurale bu Méouane. commune bu Méouane mu bokk ci commune bu Méouane diggante bi pir toll ci juróom-ñaari kilomètres yoon woowu dafa bari suuf ba nga xam ni bu ñu léegi nag ñuy lancer un autorité pour ñu mën a dimbali bi ci mel ni tali bi nga xam ne moo jógee Pire ñëw Méouane ex ba Diangar wala mu jógee Pire ñëw ba Diangar ba nga xam ni képp ku am yéene indi sa doom fii ci daara ji. ñëw bi dina la yomb ba mën a jàpp ñu loolu daara ji aussi boo gisee ñu taxawal bis mooy gis ni ñu góor gi lépp lu war ci daara ji boo ko yenu mooy fay ñi fi jàngale mooy dundal taalibe yi mooy fay ki leen di toggal mooy fay ki leen di fóotal ku ci feebar moo lay faj maanaam bépp dépense boo xam ne daara ji yelloo na ko rek moo ko jël en moo tax tey jii ñu organiser bis bi pour daal vraiment fexe loolu ñu jàppale ko jàppale mooy fexe ba daara bi ñu yokk ñi fi ñëw ndongo yi parents yi aussi ñi nga xam ne parents ndongo yi def ci seen loxo ba loolu ñu indi mu mën a vraiment di dundal daara ji état xam ne moom lay jox daara yi nekk ci biir Sénégal mu ko koy gën ko bëgg moom itam mu bàyyi ko xel maanaam ñu Euh, un des fils de Serigne euh, de la commission organisation de la, euh, tour de famille Gagnou Mbalo, qui est ici devant vous parler de cette journée d'ouverture officielle du Dara qui se trouve à Djangar. Donc c'est le nom des villages Kassan. C'est le village social le plus ancien, la famille Ndiagne-Mbalo. C'est pourquoi, euh, notre premier tour de famille que nous avons organisé il y a 10 organisé ici dans ce village. c'est pourquoi aujourd'hui vraiment nous sommes d'être là, parce que nous tous, nous sommes originaires de Diaga. Également fondé au 16e siècle. Oui, aussi au 16e siècle. Au 16e siècle, Euh, bien être que Mewan, qui est de C'est également un foyer religieux parce que Diana euh, a toujours habité le Dara. Dans toutes les maisons, ah, euh, chaque matin à l'aube, chaque jour à l'aube et le soir aussi, on entendait, n'est-ce pas, le stade des enfants activités autour du foyer en train de lire, d'apprendre le Coran. Voilà, mais aujourd'hui, bon, euh, notre père, notre père, nous sommes fiers de ce fils. Gang a fait une réalisation remarquable dans ce village. Parce qu'aujourd'hui, on a construit ici un Dara qui a une capacité d'accueil de 500 talibés. Un Dara qui respecte les normes d'un Dara moderne. Euh, des chambres euh, très spacieuses, carrelées avec des toilettes à l'intérieur. Euh, Dara qui a une cour vraiment très, vaste, avec des arbres, n'est-ce pas, sur lesquels les enfants peuvent, n'est-ce pas, en période de chaleur, se reposer. Dara se trouve dans une localité très calme, mais le problème majeur que nous avons aujourd'hui, c'est l'accès. Parce que Dangar se trouve dans la préfecture de Bamane, à 7 km de Pire. Mais entre Pire et Djangar, la route est très sablonneuse. Donc l'accès est très difficile. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités que vraiment qu'elles nous viennent, qu'elles nous Nous voulons aujourd'hui le petit manche, l'axe, euh, Pire, Mewan Djangar ou bien Je dis vraiment, si nous voulons que euh, l'objectif que nous visons aujourd'hui dans l'organisation de cette journée soit il faut que l'accès soit facile. Parce que pour amener les enfants ici, alors les parents ont besoin d'un accès facile. Non, pas Parce que jusqu'à présent, c'est... Euh, Serigne Ablaye Diagne qui C'est lui qui paye les maîtres coraniques là, c'est lui qui nourrit les talibés, c'est lui qui paye l'eau et c'est lui qui se charge de toutes les dépenses le don de la à l'État, pour que vraiment les subventions que, qui sont alliés au Dara, que vraiment ce Dara-là en Parce que c'est Dara qui le parce que vraiment il n'a rien à envier aux Dara.